bokk gis-gis parce que bul fàtte ni que premier ministre bi nga tudd d'ailleurs moom après victoire bi la ñëw mais ñun dañu bokkoon ci ñu sanc APR sos ko sond ci def ci liñ ci war a def yëpp ci opposition mhm. ñëpp xam nañu opposition dafa metti ku laaj nga xam ñuy tey di jëm di fekk si euh, président Macky Sall te nekkoon ci keppaaru Wade di wax lu ne mhm. opposition dafa metti mais mettiwul aussi bu fekkee ni da nga taxaw ci dëgg parce que mhm. man damay jàpp taxaw ci dëgg rek ndam la Euh, ñu ànd ak moom ba jël ba am victoire jàpp ni réew mi ni ko war a yoree dañ ko war a soppi ci ay anam yu bëri. Mhm. ci wàllum comme ni ñu ko waxee dekkal ngor la patrie avant le parti gestion sobre et vertueuse ma am ci nag ay safaan ak premier ministre ak président ci wàll googu nga xam ne question de principe la. Mhm. lu ay problème mu fait divers question de principe la ma gis ni sama responsable te jot na ma dem sama yoon. parce que mu doon ñaareel yoon d'ailleurs ñu am ay euh, wuute gis-gis ci ay dossiers yu kawe yu am yu am importance premier ministre wax na ni effectivement dañ ma dàq ci cuune tontu woon naa ci dama ne woon dootuma ci àddu waaye pour mu leer définitivement te bi yoon maa ngi ñaan vraiment bu ñuy discuter daje teg yeneen sa yeneen naatangoo ñu ñu xuus ci leneen euh, bés ba may dem le 2 mai ça fait plus d'un an maintenant ba may dem pale maa ngi yor ànd ak sama lettre de ànd ak ay seede fekk premier ministre comme ni may wax mu toog ak waa Total ak ñeneen président yegg sigul ci biir palais bi. Mhm. ñu ngi préparé ay dossier ak table yi pour war a signer lépp mu ngi fële taxaw tele ñëw na télévision d'État ñëw na taxaw ma ñëw premier ministre laaj ma waaw foo toll parce que la veille l'avant-veille yëpp ñu ngi doon texto di waxtaan ñu xam ne sama position mooy. lii ñu contrat bi ñu nar a jox jébbal total ànduma ci. daa mhm. ñëw ci pourquoi ànduma ci. damay leeral ci yenn fànn laa fa jóge mu woo ma ci pet moom bàyyi ñu mu toogaloon woo ma ci pet nee ma mon frère noonu la may woowee toujours waaw est-ce que doo ñu doo ci xool bos bi président ak yooyu nga signé parce que gaa yëpp a ngi fii boo fi signé day xaw a doy waar. ma ne ko fi ma nekkoon démb laa nekk ba tey du ma du ma signé tubaab la nag la wax ma tontu ko ci ma ma tekki ko ci après ci wolof ma ne est-ce que tu sais le prix de l'inaction maanaam est-ce que xam nga ñàkk signé lan la la woon nar jural ma ne ko ah kay ànd xam ko moo tax maa ngi sama lettre de démission maa ngi woon ak benn enveloppe beige format A4 boo xam ne sama lettre moo ci nekk. mais li nga wax noonu. mu ne ma li li nga wax noonu mooy junju na sa dàq la yow. junju na moom annoncé na la sa sa sa. bien évidemment annoncé na la ne dama lay. daax daax parce que xam nga li ngay def lan lay lan lan lan lan moo ci mën fekk. bien bien évidemment xam naa man bu ma signé man maa jël responsable te bu ma signé wul mais évidemment du ma fa mën a to des. léegi nag est-ce que jaral na ma signé des wala dem sama yoon et bu boobaa je prends mes te ma dem sama yoon moom xam na man xam naa il m'a dit est-ce que le prix vous connaissez ma ne ko évidemment loolu tax ba may ñëw ma indaale sama lettre format Euh, sama lettre de démission mu ngi woon sama enveloppe beige mu jël ay padam am lu mu bind njort naa ni ki mu doon bind mooy kilifaam pare tegaat ni ma waaw mon frère dama lay wax rek bëggoon naa nga nekk premier ministre nga xam li nga wax lu mu mel metti waaye tegal mbir moomu de côté ñu daal di signer après on va régler ce problème. Mhm. tontuwuma ko. ñu ñëw président ñëw ñu ànd maag moom ak président ci biir am lu ñu wax ma génnaat dem sama foofu duma ci àddu parce que président àddu ci waaye premier ministre ba mu wax dafa ne affaire cuune la ma jàpp ni lu ñu bu ñu ñëwee ba document yëpp tege foofu ba lépp teew amul retard comme ni mu waxee ci dossiers yi walla yooyu parce que ñoom préparé nañ seen dossier teg mhm. ma jàpp ni lu ñu wuute bis boobu ci gis-gisu lan mooy njëriñu Sénégal ci dossier bi te man dama jàpp ni que ñoom mhm. moom en particulier mi signé dossier bi dafa défendrul suffisament intérêt Sénégal